gannaaw buñ waxtaane waxtaanee charte bu njëkk bi muy lislaam waxtaane charte ñaareel muy taklif te mooy mët mu këllëf ñetteelu charte bi ci chartaay njàpp moy irtifaau demil xaydi wan nifaasi yëgatiku deretu gësin yëkkatiku deretu mbërëk ak deretu gësin deretu mbërëk mooy deret ji jigéen di gis benn yoon ci weer wune ci diggante fi muy matee mukallaf ba fi muy yeggee ci atu magal ba dootu ko gisati deretu gësin mooy deret ji aji ëmb ji di gis buy bëgga am doom ba muy am doom ak ca gannaaw amuk doomam bokk na ci charta yi tax njàpp war <clears throat> bokk na ci condition yi tax njàpp war ittifaqan dereeti mbërëk ak dereeti wasin yëgatiku mooy aji jàpp ji laab ci mbërëk laab ci nifaas jigéen amoon mbërëg jàpp wala mu am deretu wasin jàpp toj ga nekk ci moom du yëgatiku ndax condition ya war a réunir pour jàpp war ci moom ak pour jàpp wér ci moom ci li gën a wér condition ya dajewut kon boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ne njàpp warut ko am euh, regle ni ngeen koy waxee wala ki ku gis deret yi gasin fi ñu wuutee mooy ndax ñoom seen njàpp luñ yoonal la ndax dagan na ñu jàpp wala daganul ñu jàpp aljumhur mooy li ëpp ci borom xam-xam yi dañoo wax ne daganul ci ñoom ñu jàpp kon yëgatiku ñaari deret yi charta war lañ charta wér lañ waaye lenn ci borom xam-xam yi ku mel ni ibnu nujaym bokk ci alxanafiya nee na wa amma aimmatuna fa qaalu innahu yustahabu laha yaani alxaid an tatawadda'a li waqti kulli salaatin wa taqcada ala musallaha tusabixu wa tuhallilu wa tukabbiru nee na suñ ilimaan yi wax nañ ne soppu nañ ki am mbërëg mu jàppal waxtu julli wu nekk toog ci jullikaayam ba di sabbal ak di zikar ak di kabar di wax subhanallah di wax laa ilaha illallah di wax allahu akbar mbooloo ci salaf wax nañ ne aji mbërëg wala aji am deretu nifaas seen jàpp dana wér mel na ni ñoom <clears throat> benn dañ koy gis ngir miinal seen bopp njàpp ak miinal seen bopp waxtu julli yi nga xam ne mi ngi war ñëwaat ci seen loos su deret ja demee ñu bañ toog lu yàgg julliwuñ tax ñu tayala reprendre tax duñ miina te julli bu julli ñëwaatee beneen bi ñu gis ni njàpp dafay woyafal toju mbërëg dafay woyafal toju nifaas ni nga xamee ne ki am janaba maanaa ki sëy ak jabaram wala jëkkëram bëgg nelaw te fasut yéene sangu ci guddi gi ñu ne ko na jàpp ngir woyafal janaba gi sooga a nelaw donte toj gaa fa des ba léegi ibnu rajab nena na mbooloo ci salaf sopp nañ aji mbërëg ji mu jàppal bépp waxtu julli jublu xibla di tudd yàlla kemtalaayu jamono jam daan julli bokk na ci mag ñooñu sopp loolu alxasan bokk na ci ata bokk na ci abu jaafar muhammad ibn ali nee na loolu it mooy waxi isxaq nee na jëleen nañ ci uqba ibn amir ñu daan na digal ku mu jàpp toog ci dingareeb jullikaayam di tabaarakallahu ngir loolu <clears throat> tax mu miin ak tax mu bañ a fàtte lim miinoon makxuul nee na kaana dalika min hadyi nisaai almuslimina fi ayaami xaydahin nee na jàpp toog ci sa jullikaay di tudd yàlla ngir eh, woyafal mbërëk mi non seulement ngir woyofal mbërëg mi waa ngir non seulement ngir woyofal toj gi waaye ngir bañ a tàmmu ñàkk jàpp ak ñàkk julli nee na loolu ci e, njubu jigéeni jullit yi la bokk ci seen bësi mbërëg waaye ibnu rajab nee li ëpp ci borom xam-xam yi dañoo weddi wax ji nga xam ne mag ñi wax nañ ko nee na abu qala abu qalabata nee na laaj nañ lii suñ borom xam-xam yi waaye amaluñ ko cosaan mooy amul benn dalil said ibn abdul aziz nee na ma naarifu haada walakinana nakrahu ñun xamuñ lii dañ ko sax sip ibn abdul bar nee na ci fuqahaaw yi ak mbooleem boroom xam-xam yi ci dëkk yi lim ci jublu mooy ñi majorité absolue bi liñ wax mooy aji mbërëg du jàpp aji gësin wala aji gis deretu gësin du jàpp du wér war ci ñoom te du wér ñoom aha abu qilaaba wax nañ ko alxaaidu tasmau ladana tasmau l adana fa tawaddau wa tukabbir wa tusabbih qaala qad saalnaahu dalika lahu aslan niñ ko waxee sànq naka noonu Shucba nee na laaj na ko xakam ak ñëpp dañ koo bañ gisuñ loolu kon amul benn dalil buy wane mashruciyatu lwudui lil xaaidi nufasaa amul benn dalil buy wane ne ki am mbërëg mën naa jàpp ngir woyofal toj ga wala ngir bañ a tàmmal boppam ñàkk jàpp julli amul benn dalil buy wane loolu ci ku gis dereti wasin tamit yàlla mi ko wàccee xam na ne mën nañoo ñawaat te duñ fàtte moo leen gën a xam Nawawi nee daal su fekkee <clears throat> jigéen ji dafa jublu ci njàpp la jaamu yàlla ànd xam gim xam ne du wér ne bàkkaar la cey jëlee ndax dafay fooye jaamu yàlla mu ne su fekkee dafa rombal ndox nag ci kaw cëram yi waaye jublu ci jaamu yàlla du ca jëlee benn bàkkaar ci lu wuute mu ngi mel ni rek aji mbërëg su bañoon a lekk bañ a naan ci bëccëgu weeru koor su ca jubloo koor dafay am bàkkaar su ca jubluwut koor du am bàkkaar loolu mooy xulaasatu li imaam nawawi rahmatullahi alayhi wax ci masala mi te dëgg-dëgg moo gën a jege njub kon daal ni nga xamee ne lislaam ak taklif ci chartaay njàpp lañ bokk naka noonu xaydu ci chartaay waruk njàpp la bokk mook nifaas ci dëppook borom xam-xam yi waaye ci chartaay wéral wéruk njàppit lañ bokk ci li gën a wér te ëpp ci waxi borom xam-xam yi hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi